dès la semaine prochaine en tant que président du CES bu ñu ma dàqul que bu si je le fais avec le CES e je le ferai si je le fais sans le CES e je le ferai j'ai les moyens de le faire bul tàkkagum dara yooyu donc en tant que président du CES e je vais prendre une initiative je vais organiser dans les 46 départements du Sénégal et dans la diaspora des débats pour que les Sénégalais nous disent en âme et conscience sans affecter leur réponse ci lii may bëgg laaj wax naa ni critères yi am boo demee États-Unis dañ naan la il faut nga nekk ku juddoo États-Unis nekk nekk citoyen américain il faut nga am trente cinq ans il faut nga dund États-Unis un minimum de quatorze ans yii mooy critères yi boo ko defee rek mën ngaa nekk candidat même buñ la condamné ci lii walla ci la mais bi ma ko waxee man fii samay collaborateur am benn collaboratrice bu ne ma waaw yow nan ngay def jigéen ñi ñu violé nan jeunes yi ñu sàcc seen xaalis muy xaalisu état denier public ma ne ko ah wax nga dëgg de ma ne ko mais loolu peuple bi citoyen yi ñoom rekk ñoo am droit déterminé kan lañuy jox seen vote ak kan lañ ko dul jox bu ñu xisee xam ne diw mii tuumaal nañ ko lii condamné nañ ko ci lii te wér na ba nuppi ñu jox ko seen vote seen affaire la mu ne ma noo loolu c'est pas juste vis-à-vis de nous les yi nga xam ni amuñu doole ay góor di ñu sàkku ci lu dul suñu coobare di ñu toroxal di dagg suñuy caq ak suñuy euh, bijou donc yow même boo nee na ñëpp nekk candidat laaj ñu ñun ndax d'accord nañu ci koo xam ni dafa dañu ko tuumaal ba nuppi condamné ko condamné nag laa wax waxuma tuumaal de condamné définitivement comme li dal Karim Wade ak Khalifa Sall nga xam ni dem nañu appel dem cassation yéeg wàcc différé appel machin ba lépp yemb ñu daan leen ne leen condamné nañ leen définitivement loolu laa wax waxuma Ousmane Sonko mi nga xam ni dañ ko tuumaal mu ngi nekk première instance war a dem appel des na cassation xawma kañ lay jeex mais même buñ ko condamné wul dama bëgg pour ma soutenir candidature am c'est-à-dire ma soutenir mu am droit nekk candidat bu jaree ma xeex ceeg Macky ma xeex ceeg Macky bu ko jaree j'exige de lui qu'il prenne ci biir débat yooyu na yónni waa Pastef na yónni ay militants na yónni waa Yewwi ñu wax ne ñoom d'accord nañu ci ku ñu condamné ci diffamation maanaam yàq deru nit d'ailleurs ki ko ko ki ko ko tuumaal Mame Mbaye Niang man mii waroon naa ko ko tuuma mais damaa jëfe li ñuy jëfe États-Unis États-Unis homme public pour mu tuuma ça ne se passe qu'au stade civil du pénal du pénal civil lay doon liñ la mën a daan mooy li nga wax nga wannaat ko li nga wàccu nga wannaat ko weddi ci kanamu nit ñi comme li ma def loo woon lay Wade ba nuppi ñu daan la ndàmpaay ndàmpaay bi d'ailleurs du bari ay mille sept cent euros wala te ça c'est au niveau des états euh, euh des états xam nga États-Unis dafa am cinquante états am niveau fédéral maanaam états uni ci boppam dafa am gouvernement mais état bu nekk dafa am gouvernement mu ngi mel ni buñ ne woon CEDEAO soppali nañ ko euh, union des états de l' Afrique de l'Ouest Sénégal day am gouvernement am parlement mais CEDEAO yi dafay ëmb loolu mooy niveau fédéral ak niveau état léegi ñu wax ne ku ñu condamné ci yàq deru jàmbur te amoo ci firnde indiwoo firnde walla ñu condamné la ci yàkkataan xale bu jigéen boo xam ni nanguwul mooy mooy viol wala ñu condamné la ci euh, sàcc alalu Sénégal euh, comme li ñu jiiñ Karim Wade ak Khalifa Sall ba tey c'est mën ngaa nekk candidat ñoom nañ ko wax bu ñu bu ñu gëmee ni c'est pas nañ ko wax man en tout cas dinaa ubbi débat yi jeunes yi ñëw journalistes yi ñëw ma financé ko avec l'argent du CES puisque ci liy jàmmal dëkk bi la bokk puisque ñoo ngi naan bu nekkul candidat ñu taal dëkk bi waaw léegi na nekk candidat mais na wax ne même bu ñu ko falee président de la république dina bàyyi justice bi mu def liggéeyam ba mu sottal te bu ko justice bi condamné définitivement même bu ko fekkee mu nekk président de la république dana démissionné bu waxee loolu ma engagé ci ci